internet grand théâtre point tv ñu ngi leen di saarewaat bu baax a baax di leen jox seen wàccuwaay newoon nañ leen jotaay yii nii di ngeen koy faral di xaw a gis gëj gis lool ci grand théâtre point tv waaye fépp fu ñu ko defee rek xamal ni ki ka jar moo tax ñu déplacé wu ki nga xam ne nii tey mbokk internet yi soo doon ko gisee su waxtaanee ak yéen xel dina dal mo waral tay internetu grand théâtre point tv cër jox mo waral képp ko xamni ñu ngi dem ci mom di waxtaan ak mom ci walu ci walu wi rek ko xamni ni ku ñu jox cër lay doon ko xamni ni machallah tay nak ma ngi fi Cité Djily mbay Cité Djily mbay nak tay suñ ko rek amana ñu ci bëri suñu rek jëm ji seen xel dina dem ci nga xamni ni nii moy Cheikh Baye Mor diko jox waccu way mu baax baax diko xaaré Cheikh Baye Mor ma ngi lay xaaré yalla yalla nangu ziar a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim la xawla wala quwwata illa billahi al ali azim ñu ngi sant yàlla di julli sant yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam di leen nuyu yéen waa grand théâtre di am mbégte dalal leen wax dëgg yàlla am ndax yéen a ngi liggéey liggéey bu mucc ayib pour fexe ba doomu aadama yëpp tege si njub xam li xew ci àdduna bi moo tax bu ngeen ñëwee fii pour dalal ma rek incha allahu rabbi dañ leen ubbul seen bunt ñu ngi leen di nuyu di nuyu seen kilifa di nuyu àdduna bi di nuyu diaspora bi du nuyu ñëpp bismillah waaw Cheikh Baye Mor fi nga mujjee fa laaj ko ni diaspora bi parce que diaspora bi ñu si ëpp dañ ñu si doon interpellé dem leen ngeen seetal ñu ki nga xam ne ni moom mooy Cheikh Baye Mor parce que Cheikh Baye nekk na koo xam ne ni macha allah ñun gis nañ suñu bopp Cheikh Baye Mor bi. lan la ba tey jii nii nga gañ a confiance su sénégalais rawatina ñu nekk si diaspora bi. alhamdulilah secret bi du dara lu dul sant yàlla nekk jaam boo xam ne jaamukatu yàlla la nekk koo xam ne ku gisu la nekk koo xam ne ku war fu nekk la fooleem mbooleem fi nga xam ne xam nañ ne xam-xam am na fa rek dugg nañ fa ànd ak li nga xam ne yàlla yankiwal nañu ko ba kuñ jëflanteeg yàlla euh, defal la tawféex. wax nañ ki nee nañ demal ba Chine demal ba Hong nga xam ne du jullit bi moom. moom la war a def macha allah waaye na xam ko denc ko baax na alhamdulilah yàlla xamal nañu lu bëri ndaxte yàlla mooy xool jaam bi ni ma la koy xewoon rek sànq def ko li ko neex dégg nga ñun yàlla yankiwal nañu xam-xam macha allah. yàlla yankiwal na la xam-xam yaa koy wax léegi léegi waaye dafa am loo xam ne ni bala ñoo dugg ci waxtaan wi laaj la li nga xam ne nii tey jii nii ndax loolu ngay faj wala li ngay def laax bi. laax bi daal gars yi ñu ngi ñuy wax laax bi ak ak laax bi muy dunya bi parce que ñaar yooyu dafa nekkoon li nga xam ne nii gars yi bu ñu si doon interpellé ñu ñu soogoon laaj torop laax bi expliqué ñu laax bi ñu muy demee alhamdulilah lépp rek ngëneelu yàlla la inal fadla bi yadillah yuti man yasha dégg nga yàlla mooy xool ngëneel jox ko ko neex laax boobu boo ko gisee xam-xam bi nga xam ne xam-xamu alxuraan la ak xam-xam bi nga xam ne xam-xamu gàncax la li ko waral ku ne xam ne ne laax ñu ngi koy defee dugub wala ñu koy defee loo mboq wala ñu koy defee li nga xam ne dañ koy bay te gis nga suuf moo gën a barkeel lépp li nga xam ne yàlla wàccee na ko ndax suuf lépp loo ko jox rek incha allah rabbi dala koy delloo ci kaw loolu ñu amee ci alxuraan ay aaya alxuraan yi nga xam ne ñu ci alxuraan dafay ubbi nit ay ay alxuraan yoo xam ne dafay saafara nit dégg nga ñu jëlee ko nag si góor gu mag di suñu maam si moom lañ ko jàngee depuis ñu nekk xale dañ ciy faj lu nekk dañ ciy faj biir yu métti fa lañ déparé dañ ciy faj hémorroïde dañ ci faj góor gu tële danañ ci faj ki nga xamante ni judduwaale wu tële ki ko judduwaale wul moom am na ñoo xam ne dañuy jékki-jékki tële waaye képp ku ko judduwaale wul ñun dañ koy faj soo ko judduwaalee nag ala kulli haal ñun mënum ci dara laax boobu danañ ci ubbi nit li ko waral mooy den la jox laax bi nga lekk ko ànd ak aaya alxuraan yi muy àndal ànd ak ren yi muy àndal ren bi ñu naan euh, dippili am aaya dafa bëri bu fekkee wàllu faj la am na aaya bu muy àndal bu fekkee wàllu ubbeeku la am na su fekkee wàllu kaaraanga la am na waaye ala kulli haal bu mu mën a doon rek dafay ànd bi ñu naan dippili bi yaa togg wala laax bi ñu duñ ko togg dañ lay jox li lay jox ne la ne la soo demee nga ut sunguf wala nga ut basi wala nga mboq yaa xam lu mu mënti doon sunguf bu mën a doon soo demee ñu jox la ne la soo demee na nga ko def laax boo ko defee laax nga lekk ko boo paree am na li ñu lay saafara bu ñu lay jox ci foofu ne la nga sangoo ko su fekkee wàllu kaaraange la wala wàllu ubbeeku wala wàllu faj ci biir yaram ala kulli yàlla jagleel nañu ko xaj na temps bi duñu ko may bañ mën laa expliquer lépp waaye lax boobu daal ah kéemaanu yàlla la mbiru yàlla la yàlla moo ñu ko yanki wel ñu ngi koy sant bu baax macha allah. duniyaa bi. boobu boobu moom gaañ nee nañ ma doy na waar lool. alhamdulilah ba tey duniyaa boobu noonu soo déggee ñu ne secret duniyaa mooy àdduna yàgg naa di ko wax. xadduna alkubeer la deel la ak nuun muy xadduna dégg nga de soo jëlee alkubeer am na garab gu méngóog muy garabu xalum soo jëlee deel gi am na garab gu méngóog muy garabu siddéem soo jëlee nuun gi am na garab gu méngóog muy garabu new ñett yooyu yëpp dañoo lewet ñetti garab yooyu yëpp dañoo lewet adduna moom duñ ci kaar duñ ci amul amul kaaraange lim am rek mooy fatxu ubbeeku la am dégg nga de ci wàllu place wala ubbeeku ci wàllu këyit wala ubbeeku ci wàllu àdduna en tout cas lépp li nga xam ne nit ki def ci yëngatu pour ubbeeku ci rek su wax boobu da koy def suñ la ko joxee am na aaya alxuraan yi muy àndal bu la neexee mun nga jël zuy na bu la neexee fekkee da bëgg a yëkkati nga jël war a fax naa makkanan aliyan dégg nga de bu fekkee ne ba tey ci utam place la dégg nga am na saar yi muy àndal wala am na aaya alxuraan yi muy àndal ala kulli haalin du nekk rek lépp la ñuy wax ci biir micro bi alhamdulilah ñi ngi sant yàlla bu baax a baax ñu ngi ciy jëflante ay nit ñu ngi ci gis seen bopp ñi ngi sant yàlla ba ñëw ci yéen ngeen ñëw seet si ñu ñu ne dañ koy sante yàlla de ndamo wuñ mukk duñ ndamo nit ki bu la yàlla mayee da koy gërëmee yàlla mi la may ndax bari nañ ñi nga xam ne ñu ngi fi ay doomu aadama lañ jàng nañ dégg nga de uti nañ waaye yàlla deful ñu am ijaaba bay ñaan yàlla yàlla mu koy nangu lijaaba yàlla may nañ ko lijaaba nag li koy maye mooy jaam bi nga sax ci njub sax ci jaam yàlla di def ay naafilal xayri sax guddi nga jóg def say naafila am ismulaay azam bu wër nekk ci boo ci nekkee insha allahu taala lépp loo ñaan yàlla rek yàlla na fa yokkuñ ñu ne ñu ngi koy sant yàlla macha lépp loo ñaan yàlla yàlla nangu waaye nag fu may duggee nag ci waxtaan wi moom mooy ñàkk xaalis gi ci réew mi farale mi nga xam ne nii ñëpp nga koy joytu xaalis ñàkk na liggéey ñàkk na Baye Mor loolu lan la ci saafara. waaw saafara bi yëpp du dara lu dul nit ñi ñoo gàttañlu doomu aadama yi dañ gàttañ lool da ngay dégg euh, am na ñoo xam ne boo leen waxee waxi ñaan sax dañ naan ah ñaan lan ñaan lan te yàlla ne bi astajib lakum ñaan leen may leen tegaat fële na in yi dana azidanakum soo ma santee ma doole leen lan moo tax jaamu yàlla yi duñ dem ñaan yàlla réew mi dafa métti waxuma la sax mbiru ñàkk xaalis bi rek waaye mbiri accident yi. que man naa ñëw foofu après. mais comme ñàkk xaalis bi tey dafa nekk li gën a sonal gaañ ñàkk liggéey bi après nag ñu soogee ñëw ci li nga xam ne moom mooy rey yi fi am ak ñoom seen lu la moo ne ci réew mi Cheikh Baye Mor gàtt na li ma la wax léegi si lu gàtt nit ñi ñoo gàttañ lu ci dem ñaan yàlla ñaan yàlla dafa nekk loo xamante ni jaam bi daf ci war a nekk ba abadan dégg nga ni ngay xiifee di lekk suur dégg nga de boo suuree di nga xiifaat boo xiifaatee nooy def da ngaa war a lekkiwaat ñaan yàlla nit da cee war a sax daa iman dégg bu boobaa rek bu fekkee ne ku tënku la yàlla mën na laa tinki am na ñu am na am nañ xaalis de am na ñu ko ñàkk nag ñi ko ñàkk nañ dem xool seen bopp am na ñoo cat moo leen koy def am na ñoo liggéey bu yàgg seen yaram moo leen koy def gis koo xam ne dafay am xaalis dem ba mu yàgg rek yoroon société wala mu yoroon dara mu jékki-jékki rek daanu li ko daane fekk ne moom bi mu yoree société boobu noonu bew na bew gi nga xam ne yaakaar ne kenn mëntu koo daane fekk ne am na ko nekk ci suuf yéenewu ko ko dem ci sëriñ boo xamante ni bu mel ni man du ma def nag lu bon dégg nga waaye dinaa jëflanteeg ñi nga xam ne léegoo léeg dañuy xaw a yaradiku niñ ko day wax dëgg rek xulil xaqaloo kaan mu ron dégg nga léegi su boobaa ka nga xam ne usine am boobu wala société am boobu dafa daanu li ko waral mooy que ne dafa am ku nekk te suuf dem di ko suuf di ko suul dem di ko liggéey dem di ko yàq ba tax na kon su boobaa rek ala kulli haalin lam doon yëngatu muy kos-kosi loolu dafay daal di taxaw kon ñàkk gi nekk ci réew mi dégg nga de suñ bëggee mu mu développé maanaam suñ bëggee mu jóg nañ góorgóorlu ci wàllu ñaan nañ góorgóorlu ci wàllu sarax nañ góorlu ci wàllu xool ñi nga xam ne yàlla may na leen ñu dem ci ñoom tàllal leen loxo bëri na ay xam boroom xam-xam yi nekk ci réew mi ni mu amee ay saay saay yoo xam ne dañuy ñëw di yàq nag noonu la baree ñi nga xam ne ñi ngi toog nekk ay borom xam-xam lu tax duñ dem ci ñoom. loolu ñoo war a dem ci ñoom. ñi war a dem ci ñoom mooy ñi nga xam ne ñoo ñàkk même ki am sax da war a dem la nga am fexe mu gën a yokk nga fexe noo ko fegee sawaay waa ji dafa wax ne fajoo gën fagaroo gën faju da ngay fagaru balaa ngay faju am na loo xam ne nit ki dana ci nekk dem ba yàqule nag bëgg ñëwaat fekk na loolu moom alaakulli àllin yàqu na yàq goo xam ne. ñu nag ku ñu yàq mu leer ni kii yàqule na moom gars yi ne nañ kii lu mu yoroon nag lu mu bëgg jógaat ndax Baye Omar mun na ci dara. alhamdulilah yàlla moo ci mun dara waaye teg na ko ci sama loxo yaa ngi yàlla dafa wax ne yaddulaa fawqa aydihim sama loxo teg naa ko ci loxo jaami teg na sama loxo loo xam ne billaahi lazi laa ilaaha illaa huwa nit ku ñu yàq ba yàqati la en tout cas dinaa la xool su ma ñëwee xool say mbir xam fan laa la war a jaar jàpp sa biddew téye ko su ma la téyee mën naa laa tegaat ci yoon ba yow ala ba da ngay sant yàlla ala kulli haalin loolu mooy parce que dafa am lu ñu naan ibtaal sexri loo xam ne dafay toj liggéey dégg nga nit ki léegi la def la liggéey boo xamante nii pour nga toj ko du yomb du alxuraan rek wala du sunguf rek moo koy toj am na yoo xam ne dañ koy def ci ay bopp golo am na yoo xam ne danañ ko def ci ganaar gu góor ak gu jigéen dégg nga boo boolee xul walaa axat dégg nga ayaatu kursi dégg nga nga jël laqat jaakum mais du la wax lim bi te du ma la wax yeneen saar yi ci topp du ma la wax yeneen aaya ci topp boo jëlee ganaar gu ñuul ak ganaar bu xonq waaye bu weex la déggamaan bu ñuul ak bu xonq waaye alhamdulillah comme ni ma la ko waxee ibtal liggéey mooy li nga xam ne dafay toj liggéey am na loo alxuraan rek du ko dindi si nit ki am na loo ren rek du ko dindi am na loo sunguf rek du ko dindi am na loo di nga ko booleek liñ naan boppu golo wala nga boole ko bopp till wala nga ut ganaar gu góor ak bu jigéen dégg nga mën a nekk bu xonq till till ci àll bi lay nekk dafay nuroog genre xaj loolu lay nuroog ci àll bi dégg nga de am na ñoo xam ne dañuy lekk yàpp bi waaye ñun nag ñun duñ ko lekk ñun duñ ko lekk boo demee côté bi ma wax rek côté Mali boobu nga ne dugg naa fa lu ñu dul lekk dégg nga bopp boobu noonu boo ko jëlee am na li ngay def ci biir insha allahu taala nit ki bu fekkoon ne dañ koo liggéey même bu fekkoon ne dañ koo takk même bu fekkoon ne dañ koo sànni korte même bu fekkoon nag mbir jalan la sax liggéey boobu dafay toj ba set wecc ki ko def dafay dellu ci moom ki ko def dafay dellu ci moom moo tax nit ki boo demee bay liggéey daj ab nit pour yàq ko wala benn affaire xoolal biddi wi nit ki wala xoolal ndax kii ëllëg ci ngay liggéey nii am lu koy toj. kon Cheikh képp koy jëflanteel sooy toj liggéeyam ki ko ko def da nga koy delloo. dafay dellu force yow yaa yow daal sa liggéey noonu képp koo xam ne ni dañ kaa yàq wala bu ñu am lu ñu ko def wala nga gis liggéey si moom sooy dindi liggéey bi ka ka defoon da nga delloo. dafay dellu ci moom li ma la wax kay li ma la wax man awma lu ma ciy daw parce que am xolu xolu kañaan ba dem liggéey nit pour yàqu yow lu dékku rek yaa ko yaa ko yaa parce que yaa ko góob. léeg-léeg kooku su bëggee baal nag yow yow nga wala yow amul amul loolu. man li ma la mën a wax mooy. dafa am liggéey boo xam ne bu ñu la ko defee su ma a ko defee dafay dellu ci moom te da nga ciy teg sa bët da ngay gis ne kii moo la defoon nangam bi alaakulli aalin loolu yàlla moo ko def waa de dafa bëgg wax ne lu tax ngay mën a xool doomu aadama yow yéene woo ko dara pour mu am xanaa nga koy yéene ñàkk xanaa nga koy yéene mu dof xanaa nga koy yéene mu torox léegi nag bu fekkee loolu am na ah ñu defal ne defar rek mu tourné ci moom rek loolu kese moom moo fi léegi suñ jógee ci loolu nag rey yi bari lool ci dëkk bi. dëkk bi léegi amatul kaaraange da ngay nekk sa biir kër sa xel du dal da ngay nekk di liggéey yi sa xel du dal nga nekk sa biir oto sa xel du dal da ngay génn sax di jënd ji lekk sa xel du dal yaa ngi xalaat ñu koj la nangu li nga yor ba la si loolu lan lan moo causé loolu. waxoon naa ko am na ku fi ñëwoon laaj ma jamono bi nga xamante ni ñu ngi waaj a fal élection yi dama leen waxoon ne président Macky Sall mooy falaat. mooy falwaat waaye réew mi dina tàng billaahi wallaahi watallaahi yàlla mooy suma seede lii laa ko waxoon mën naa la jaaral ci tur ki ma ko waxoon ndaw si ma ko waxoon ñëwoon na fii ki naan euh, daaru na ngeen ko oo ngeen laaj ko lii laa ko waxoon te loolu ñu ngi ciy teg suñu bët joxe woon naa sarax nag xam naa ne nit ñi defuñ ko waaye nañ saraxee kenn ku nekk ñetti kilo ceeb boo amul ñetti kilo ceeb dégg nga de wutal ñetti genn waa liibaru suukar boo amu ñetti génwaale pour suukar utal ñetti mbuus suukar yaa xam ni mu toll nga sarax ko kenn ku nekk bu ko defee xool ay doomam bu defal ko ko rek insha allahu rabbi yàlla dina def jàmm ki na fagaru comme ni ma waxoon rek boobu xaw a xoon wala bu fu mu toll nii la gaa yi war a def loolu sarax bii nii booba léegi fi mu toll nii war nañ ko mën def na ñoo xam ne ba tey sarax bi war nañ kaa mën def bu ko defee rek dañuy gis jàmm mosoon nañ fi di jàpp ay xale di leen rey lan laa fi xoon génne woon naa fi sarax te boobu dañ maa invité woon 2S maa ngi jógee woon kee Kédougou ndaw si oo ma ne ma dama bëgg dama laa bëgg invité man ne ko xanaa bu ma ñëw Dakar bu ma ñëwee Dakar laa dem ci moom mu invité ma naa ma rey xale yi ñuy rey ak nangam sangam sangam ma ne ko nañ def sarax nangam li nga gis ñu commencé jàpp nit ñi te li nga gis loolu dakk lépp loo gisu nekk am na lu koy effacé. ray yi bëri na ne nit ñi aar seen bopp nit ki mën ngaa aar sa bopp boo xëyee rek dinaa joxe benn boo xam ne pour ñëpp nañ ko jël dama koy maye nit ki bu xëyee. na joxoñ kanamam tari ina anzalnahu bam jeex mu joxuñ ginnaawam mu tari ina anzalnahu bam mu nday joram chamoñam ci kaw ci suuf même buy dugg auto sax li maa ko joxe ndax te ñun Sénégal ñoko ko te ñun ay doomu adama lañ dañoo bëgg di dimbanteeg suñuy mbokk képp ku ko def da nga di yëg ci auto ba wacc dara du la dal képp ku ko def mën nga xey ba bët ba guddi dara du dal waaye nag nañ uti avion yi nag crashé bari na avion yi daanu ñaan bu baax na ci avion wala. baax na soo mënti yéeg baax may naa la ko may naa ko sa morom may naa ko ki may seetaan may naa ko waa Sénégal may naa ko ñëpp nañ jël billaahi wallaahi watallaahi man li may jëfandikoo laa jox ñëpp nañ ko jël te dama bëgg benn mbir ne nit ñi uti kaaraange ndombo fi yoo xamante ni boo ko gawee même coow bu amee sax boo ko gawee coow la lay fay juróom-ñaari gaw lay àndal boo ko gawee yow nga fekk mbooloo muy coow nga gaw juróom-ñaar yëpp taxaw coow li fay sa waay uh-huh. ñun dañoom am xam-xam dañ koo jàng dañ koo xam dañu koo yankiwal newul lu ñuy taxawaale newul lu ñuy tappale léegi suñ jógee ci loolu ci coow geeg ci rey yeeg ci loolu dëkk bi xale jigéen ñi bëgg nañ sëy de xale jigéen ñi sëy xale jigéen ñi sëy yaa ngi tas parce que parce que loolu loolu dafa nekk lu jaaxal gaañi dañuy dégg kii sëy ji léegi yàggul dara tas na kii ñu jékki-jékki bëgg naa jëkkër dem ba ci yàgg ngoro la yàqu xam nga xam nga rek buñ naan jaxaar nga jaxar boko ko bo boo jaxar ubil bop bi am ren bi mu am ne renu boftaan ak chapantan li ñu chapantan chapantan ci àll nek de da bu melni ay digle boko ko dalay jam touti gis nga loolu boko jele, fak sa soxna la la wax de sa soxna la pour sa soxna pour sa soxna ne dafa dank Cheikh bay Cheikh bay ñaan bi mba do ko wax gaay daf ko sen ngoray ni waaw dama bii ma lay wax ni dama bëgg du ma wax lépp parce que du euh, ñu waxee lépp yaakaar naa ne sirru bi sax mbóot mi su ma ko téyee sax même su ko waxee yow du la jariñ parce que mbóot mi dama ko téye ngi loolu boo ko jëlee yaa ngi may dégg nga fexee nga am sa karawu soxna boo amul ci karawam yow fexeel ba am weewu tànkam boo amul weewu tànkam amul weewu loxoom loolu yëpp boo ko amul amal ngeen baal ma ci kàddu gi li naan boo ko jaxasee dèjà bu ñuul bi ñëw na nga ut nag am na aaya bi muy àndal incha allahu taala yaa xam da koy suul yaa xam da nga koy takk ci kër gi yaa xam da koy def sa poos yaa xam da koy def sa valise yaa xam sa armoire foog ma dem ndaw soosu ba abadan doo dafa jóge moo xëy dëj ci kër gi ba abadan doo dafa jógee loolu lañ naan doot am na boo ñu ngi koy defee ren boo xamee ne mi ngi sax ci biir bàmmeel tant que néew ba jugut ndaw sa du fa jóge dégg nga boobu laa la may li ma la bëgg a waxaat pour jigéen ñi nag pour ñu pour seen jëkkër yi amul. am na am na même sa soo bëggee sa jëkkër sax di la jox xaalis sax am na loo xam ne da nga koy raxasoo rek. Ah. ànd ak moom force lu mu am dala koy yànk yow dala koy day ñëw ne la am ñi nga xam ne amul jëkkër bëri na ñi am ay rab dégg nga de. am ñoo xam ne far moo leen koy def. ñu toog seen xol di tàng. ñu jékki-jékki ku ku ku ñu am suñ ku ñu bëgg sax suñ ko gisee mer. waaw ñooñu far moo koy def loolu nag bu ñëwee ñu effacé leen ba mu set euh, morceau bu xonq morceau bu weex morceau bu ñuul loolu lañ koy defee incha allahu taala boo ñëwee ñu dindi la ba nga set incha allah bu fekkee da ngaa amoon problème mu jëkkër di nga am jëkkër am na yoo xam ne fuddan laa koy defee boo xoolee fuddan mi ngi fi dégg nga am na xam ne fuddan laay defee loolu damay def li may def saafara boole ko fuddan nga fuddan incha taala yaakaar naa balaa muy raaf di nga am borom kër. balaa loolu di nga di nga dina am borom kër mais internet yi ñu ngi may dee ne ma Cheikh Baye mbaa loxoom tàngul rek. alhamdulilah nit ku nekk ak ñun ñun amuñ jafe-jafe wallahi amuñ jafe-jafe ñun amuñ benn jafe-jafe lu du dimbalante ak jaamu yàlla yi l'essentiel képp ki nga xam ne sa mbir ni mem na nga yéene loolu sa xol nga fexe ki nga xam ne dafa toog di la ci dimbale nga la waaye nga fexe jox ko loo xam ne dafa jugee ci sa xol nga bañ a ñun ku ñu indil ñaar dërëm sax ñu jël waaye na fekk na loolu nga am dégg nga ku ñëw na ñu amuñu dara billahi ñu jëflante ak yow boo fi ñëwee na amuma dara fekk am nga ñu jëflante du sotti de du nangu. Cheikh Ba joxel numéro bi gaaw joxel numéro bi gaaw ñu yeggali. 77 433 38 58. 77. 433 433. 38 38 58. 58 beneen bi nag. bi nekk ci whatsapp bi gars yi di di di fois ñu affaire yi xaw a dëgër ñu vocal la. <laughs> whatsapp la sax. 78 322 08 08. 78 322 08 08. am naa tigo waaye tigo bi moom xam naa après dinaa leen ko jox. incha allahu taala dafay nekk boo xam ne ni dañ koy réserver waa grand théâtre <laughs> kooku moo nekkoon Cheikh Baye nag nekk fii si Cité Djily mbay suñu waxtaan ak moom nag ci côté jigéen ñi li nga xam ne ni nag tey jii nii moom mooy tax jigéen ñi mën a sëy suñu sëyee ñu mën faa toog Cheikh Baye xam naa ne tey lu def li lu def ci nag bi yëpp xajul ci jën li léegi dañoo bëgg rek nga résumer ñu tuuti euh, li nga xam ne koy faj ci ay jàngoro ak li nga xam ne ne tey jii nii danga koy def ñu tàggatoo ak internet yi ba gaañi waxaat ñu ñëwaat ñu ñëwaat incha allah. su ma leen ko nangulaatee. incha allah li ma leen mën alhamdulilah li ma wax daal mooy. ñu ngi sant yàlla bu baax yàlla dénk nañu lañ mën a faj bëri na lool du lépp la ñuy faj nag waaye yàlla lim ñu dénk macha allah bëri na bëri na ci comme li lëmbee jamono ji dañ see gëstu am xam-xam bu wér muy wàllu ngóor dégg nga yàlla dimbal nañ ci yàlla dimbal nañu si ñi nga xam ne dañuy xëccoo. si si si ñaata temps nga koy faj. alhamdulilah ça dépend ci nit ki feebaram man du ma wax damay faj nit ci trois jours wala ci 4 jours wala ci une semaine. léegoo sax ñu faj ko ci benn fan ci tàng-tàng waaye léegoo mu dem ba ay 15 jours dañuy xool ndax kii jàngoono fi mu toll rek noonu la ñuy jëflanteeg moom dégg nga di wax ne même suñ mbokku footballeur yi ñu ngi dimbalanteeg ñoom am na lu mu bëggoon wax li mu bëggoon wax loo xamante ni billaay wallaay damaa tëdd ñu wan ma ko Aline Cissé yéen kan moo ko mën a gis ci yéen. Théâtre point TV kañ ku ñu soxla dinañ dem waxtaan ak moom. su ngeen demee ci moom na ñëw fii man laaj ma ko benn dërëm. même bu fekkee ne du moom ngeen gis ki yor sport bi laajuma ko benn dërëm billaahi wallaahi watallaahi laajuma ko benn dërëm dafa am fu ma koy wax rek mu dem fa du sunguf lañ koy jox du ren lañ koy jox du lañ koy jox du sarax lañ koy génneloo du dara dafa am rek fu mën a ko dem rek su fa demee gisuma lu koy teree jël coupe dégg nga. ñëw fii waxtaan ak yow nga ne ko nga am foo ko yebal. naa ko yebal su ko neexee ñu ànd man ak moom. bu ko neexee ñu ànd ak moom man Sénégal jaral na ma loolu ndax euh, bii passé sama xol bi def seen naqari lool te mu war koo mën a gañe waaye li ko waral yépp mooy que ne lu ndaw moo ko téye ñun coupe du monde sa suñ ko coupe du suñ ko buggee mën nañ ko am gis nga loolu yow xam nga ne ñiñ yor mën nañ waaye dafa am ñu gàllankoor te li ñu gàllankoor billaay wallaay lu ndaw rek la du ay du ay du ay takk du ay fas du ay ñaan lu tuti la su ñëwee ci man dina ko dé insha allahu taala su fekkee mënu fa dem man ak mom man nañu and mbag ak mbag tank ak tank ba may yegg fofu non insha allahu taala gisuma lu koy téré jël ko jërë mo nekkon waxtan bi nga xamni nak amal nañ ko ak Cheikh Baye nee na grand théâtre point tv ni lay demee rawati na de 100 découvert chaque jour ñu découvrir loo xam ne nii ma sha allah so leen ko gisee jëruñu ci so leen dégloo gis so leen xolé gis loolu nag moo nekkoon li ngeen xam ne nii moom moo nekkoon waxtaan wi suñu découverte tey gi nag moom moo nekkoon Cheikh Baye nekk fii nga xam ne nii moom mooy cité Djily Mbaye kon képp koo xam ne nii bëgg nga bëgg ngaa jëflanteeg moom rek numéro yi nga xam ne nii moom lañ affiché suuf moom ngay jël woote si jëflanteeg moom te nag nee naa leen Grand Théâtre point TV képp koo xam ne nii nag wóorul wala ay affaire dóorkat yi ngeen di wax noonu duñ jëflanteeg moom parce que yéen internet dañ leen respecté dañ leen jox cër asalaamaaleykum wa rahmatullah ngeen jëf